bu subaa moom bu ñuy jaatuloo na ñuy jaatuloo fenn waaye bu doon fam ne jaatuloo woon ñëpp bu yàggee ñu tëb bu yàggee ñu tëb waaye bu ñor jukkoy gune fu nu seytaane jaarale tey bu subaa mu jaarale sëñ Mor ñoo ngi leen di dénk ak njub ñoo ngi leen di dénk ak farlu ñoo ngi leen di dénk it wattandi ko ak càggante fu ngeen mën nit ki bu jubee ñàkkul sàgganu dara rek jënd ko waaye ku jóg hmm. lu baax lu jóg raw ko te lu ñu mën di puukare woo hmm. puukare woo di topp kenn du jariñ si moom te jugu incha allah fexe leen kon ba jël jub def ko muy seenu ngànnaay ndax dégg bu leen di jub ñaari fan juba di ñetti fan dañuy jub ñaari fan jubaat ñetti fan jubaat ñeenti fan ba juróom-ñaari fan yi mat ñu fexe ba weer yu demee noonu fexe ba at mi demee noonu bu ko def si lépp jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Cheikhouna bul geesu ku lay tagg bul faale ku lay xas ki lay tagg boo ko geesoo mu dox sa digg ak yàlla ki lay xas boo ko geesoo mu dox sa digg ak yàlla da ngay dëgmal yàlla te muy dëgg ci yow ndax dégg nga li ma la wax ngeen ko xam dégg nga li ma wax waxtu wooy dox si mbedd nit tagg la nga geesu di xool ku la tagg na la wóor na sa digg ak yàlla dara jagagu si waxtu wooy dox si mbedd nit xas la ngay geesu xool ku la xas sa digg ak yàlla dara jagagu si waroo geesu kay tagg waroo geesu kay xas yàlla rek nga war a gis moom nga war a xool ci sa kanam loolu Serigne Touba jàngale waaw sëñ Cheikh bépp murit boo xam ne soo ni ko nii mu mer waaw ku ko tuddee saadix yaa ngi koy tooñ jigéen gu ko mooy saadix du mer am lu ko naqari waaye du mer xam nga lu koy naqari murit saadix xam nga lu koy naqari gis nga nit ñi dañuy ñëw léegi suba ba ngoon ñu bëgg maa gis mu mel ni day am ñu muy ta waaye bul fàttaliku ni bu yàggut mm-hmm. daan naa dox fii ba Touba kenn du ma romb ba nuyu ay jëli daan ko jëndi Touba dama daan dox waaye léeg-léeg sax nga nuyu nit daanaka du la fay mm-hmm. moo tax si laa gën a xamee ñàkk solo xam nga da si yéemi mm-hmm. lu la jox mm-hmm. bëgg koy puukarewu mm-hmm. waaw cëpp xaritam la ko jële jox la balaa yàgg mu jële ko si yow te bu jox man naam sam noonu la koy jox moo tax nan tege si lu war a tege sëñ si wax na boo nu doon kër dañuy waxtaan ak yéen di ree fa kaw waaye nag du ko dunut <laughs> dëgg jërëjëf yàlla nga fi yàgg. amiin amiin. ngeen jot suñu vidéo wala si bitim réew da ngeen di abonné fii si ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal a